dëkk boo xam ne koo ñaan paas gaaw mu bañ koo ñaan paas gaaw mu bañ waaw baax na maa ngi xaar bu génn télé bi kenn reetaan laay xaar loolu laay xaar yéen it moom seen paas yi gàmm ak seen paas yi màggal ñaan naa leen bañ ngeen waaw merci kenn reetaan ak moom laay xaar.